gars yi Alaaji Malick Ndiaye Cheikh Thioro Mbacké ak ministre des sports maître Augustin Senghor Pape Alé Niang ci Aladji Malick TV les coulisses ci stade bi ñu indil leen ci ay faram fàccee gars yi ma nga noonee sàkku naa ci yéen abonné bala noo kon ne ci vidéo bi nga xam ne boo am solo la gars yi ma nga noonee ci stade bi nga xam ne lii ay coulisses la yu ngeen musta gis ci benn télévision loolu lañ leen andil ñu gis ki nga xam ne yaakaar naa ne mooy Aladji Malick Ndiaye moo sol costume bi danañ leen sumal image yi Pape moo nekk ci moom di directeur RTS Euh, maître Augustin Senghor moo nekk noonu sol costume euh, bu weex bi ki nekk ci kanamam di ministre des sports di njagamaar di jigéen joo xam ne ju mën góor la liggéeyam nag ñëpp lu ko ndax ndorte gi mu ndorte ba mu demee stade wala boog ci tinel yi joueur yi footballkat bu ne mu jaar ci sa tour joueur yi mu mujj woon euh, jummi moo nekk noonu ngeen gis ko nag ci wetu maître Augustin Senghor Augustin Ngoog moom di président sénégalais bu football Cheikh Thioro Mbacké nag ci sunu kanam moom it ñëwee moom it seetaan si bi ci yi nga xam ni des na yeneen vidéo yoo xam ne yu ci xunbuj lu leen a andil maa nga noonee moom ñëw ci eh, seetaan si ab équipe en tant que patriote en tant que bëgg gum bëgg Sénégal loolee nekk cofeel ci képp koo xam ne yaa ngi topp bi seen Aladji Malick TV jërë ngeen jëf information ci kanam